bëgg ay bale lool yow euh, euh, la ci fayee weer trente mille vingt boo ci dékkee lu ci def du cinq mille ah, boo segal bi nga gën booy moom lañ ci nappe boo gaawul ak booy ñu ngi nappe mën nañ ko rey booy kan Fanta Fanta booy booy ñu ngi nappe booy ay booy international lañ booy booy gaawul booy fii nga war a mën a pourfait booy wan ko ni booy da nga ko bëgg booy kañ dem nga jëli ko gaawul booy fii rek la booy kañ dem booy sinon rek moo loolu kañ dem waaw toog naa localisation bi non safar xool tout droit tout droit bu defee tout droit nga jaatu sa gauche. sëñ bi maa lay ñaan. ok d' accord. ki ma gën a bëgg sama àdduna bu ko dara jot. bon tënket tënket. mooy safar yow doo ko am yow safar yow nga am lu naaw a a dawee ko. yéen ñi jouer à mon mën ngeen jouer ak sama code promo 21F saa boo jouer nga am bonus cent cinquante six francs CFA lien commentaire merci. oui merci. et ça va badan. man téye man na man bëgguma dara lu lay gaañ moo sans bandi sax dama leen di rey ñoom ñëpp man naa la ko wax dama la bëgg sa tem am lek peew kidnappé ñu war na la kidnappé biñ la kidnappé la ma tax woo ma téléphone dama waroon woo ci ci dama oh. oh. back in Bakkan gaañu la non ñu instant yi nii booy next to waroon nekk you. mariage bi ngay nekk ñëwee sàcc. ok merci merci guy. merci You're ngi def jëlal cinq mille yi ak li jënd si ataaya ok nañ go. kaw ñu def merci ok Hey! Hey! Arthur. Faz duro, firme, pinho, pegando,